est-ce que lu nu mel aussi mun nañ ko xaarandi ku ni ci ci ci ci jëmale ko ci Ousmane Sonko par exemple euh, moom mi nga xamante ni euh, depuis lors gis nga euh, yëf yi nu mu naa takkarnaasee ci kawam emprisonnement am ak aussi grève de la fin bi nga xam décrété woon na ko partem bi ñu dissoudre donc tey sax ce matin d'après les échos on nous apprend que ni attaqué nañu Cour suprême ngir ñu mun a invalider décision bi nga xamante ni tukkee na ci autorité ngir ñu dissoudre seen parti d'accord naa si li ngay wax mais xam nga la mooy son problème Ousmane Sonko ñoom ñii war nguur gi ñoo wax ne bokkatoo mm-hmm. ñoom ñii nga xamante ne ñoo Ousmane Sonko ñoo faroon ngoon ñoom nañ liggéenti gi alhamdulilah bi ma waxee na ma déposé nañu cour suprême. pour oui. que. pour seen parti bi ñu dissoudre ñu ànduñu ci. waaw oui. bon xam nga ku ñëwagul kenn mënagul la nga koy dagal mbootu muñ ko boote sanoo sa bopp la mën naa juddu de mën na nekk nekk am si léegi fi mu nekk nii euh, Ousmane man de wax fa dëgg ne yàlla. ba ma amoon lu ma gën gënal si jamono bii nga xamante ne mu ngi campagne ak def mhm. ma toog mu toog mais xam nga sénégalais yi boo recevoir kii ñu saaga la boo kii ma ne non bu ma fi indi coow parce que ma nit dama mën a saaga te saaga yu fort laay saaga dem naa fi sax benn enregistrement pour ma ma xaw ma na Malika xaw ma naka booy Malika. Mhm. saaga yoo xamante ne wóor na mu ne papaam bu koy dégg di sukuraat yaayam bu ko déggee sukuraat moom sax bu ko déggee. sukuraat day suk ay mor ko bala yëpp xam nga anta se lii gars yi daan wax anta seel Malick Niang boo wax Malick Niang dafa mën a bëre mais pour wan ka nekk kii nga bu ñaar di di di bëre wala ñaar di dawal cinq sax. dañ naan ant maay bàyyi ma may anti Sëriñ parce que daf ko man man loolu dama ko man te xam naa ne fi ma toll ak ni may defee ak façon bi ma jël mu yoon woo xamante ne yoon njub la xam nga dafay jaadu pour que Ousmane Sonko bu gaa yi liggéeyante ba pare mais ndax jéem nga ndax ndax ndax jot nga def médiation jëm ci jëm ci moom. non par rapport ak li muy li muy dund oui. Euh, am na ay dégguloo ma ne la am na ay yoon ñu yoon mën naa la wax ay quatre fois ñu ñëw si man toog ak man pour que ma toog ak moom maanaam mu ñëw suma kër mais xam nga. Euh, ñun ci kun yoonu coutume dafa am yoon ni ngeen di gisee gouvernement bi am yoon ñun noonu lañ amee yoon boo seetee lébu yi ñooy citoyen yi citoyen yooyu yoo xamante ne dañ ne France lañ bokk les citoyens français ndar la ak ak ak ak yi Dakar yi Tëngéej ak Dakar ak gore parce que bi ñu doon wax waxu médiation am na ñu doon wax sax ne est-ce que jaraaf bokkul ci kilifa yi nga xam ñu ngi dox médiation euh, diggante Ousmane Sonko ak njiital réew mi di président Macky Sall vu que ni sa xarit la. xam nga lu tax sax defuma ko parce que dama bari ñoo xamante ne ay kilifa lañu waaye dañu may teg noonu xam nga lu te ñuy teg ma noonu su ma digganteeg président moom la ñuy jéem a guerre est-ce que xam nga ne président ma suma recevoir. bi mu faloo ba tey. waaw mais léegi fee ak élection yaakaar naa ne dina ma recevoir te su ma recevoir parce que moom wax na ma ne ma dinaa la jël bu ma jëlee. li ma xalaat ma wax ko ko comme ça amul problème ay mbokk lañ. d'accord parce que. àdduna kenn du ko yenu dañ ci dox man ñu bàyyi président bi mu liggéey bu ñu àggee ñu kii ko. bu ñu àggee si voté ñu wax mais trois cent soixante cinq jours yëpp yu at mi gars yi dañuy campagne te lool mu ngi ko commencé si Ablaye Wade. da nga bokk suñu gëm ni euh, dañoo war a def ab élec organiser ay élections yu inclusive ñëpp bokk ci notamment Ousmane Sonko. ah déet déet defal naa dañ ko teg si yoon parce que gis naa ne baal maa ah, xam naa li ma wax da koy dindi. non dama ko dindi bàyyi ko dama ko ci bàyyi. parce que yéen eh, yéen ñii di. ñun journaliste di journaliste dañoo doy waar. bari ngeen solo boo xamante ne nii ngeen def Ablaye Wade tawal ko ba mu dem muy ñaan ñetti weer ñetti at ngeen ne non non non wow wow wow wow dem ren gi yéen a ji ba euh, Karim Karim. xaaraara ah, ah, ah, kii xalifa ndànk la beneen wax bi président képp ku mu si war a doxal dina ko doxal su ko doxalul man day jaraaf saa yu ma gisee lu dul yoon danaa seet ku ko jigéen waxtaan ak moom si lii ma li ma xam bu ma jógee si loolu toujours ngeen dégg ma si média yi mais dafa am lu tuuti loo xamante ne moom may téye parfois damay gis ne façon bañ tey waxee ñenn ñi un président kenn du ko jàll ki yàlla tànn na mooy jiite réew nga yàq ka di saaga di wax lu dul yoon ñii bokk ak euh, euh, euh, opposition bi ñoo ko waroon di waxtaani seeni kuréel nit ñi du ko dégg xel yi dal xam nga tey gii xale yi dee an seeni papa an seeni yaay màndu woon na wutu ah bul defe ne damay wax parce que nit la de suma doom yóotu nañ ko fii te maire Wakaam baa si biir gendarmerie chef de brigade baa ngi si biir kii nga xamante ne mooy euh, waa ji euh, booy sàmbara un militaire la booy bàcc boo ma téléphoné na ma sa doom dafay doxaan doomu Pape Malal mais nun dañ bëggoon nii yóbbu ko gendarmerie pour que mu bàyyi ko déedéet est-ce que loolu rafet na hmm. ay booy te ñoom ñii koy wax ñuy doxaan yaayu xale bi fii la dëkkoon ay xale nag fuñ fuñ jógee ñi daal di doxaanante pour ma wax la rek luy xew mais gendarmerie Ouakam lañ sa def dara baaxu si dara du dëgg rapport yi def yëpp dara du si dëgg d'accord bon. Mm-hmm. adjoint bi mooy xaritu booy bàcc. adjoint bi mooy xaritu booy bàcc. adjoint bi bu mu nekkee boobu xaritu booy bàcc. fekk na mm-hmm. maire bi xam nga maire Wakam kii nga xamante ne mooy papaam. Mm-hmm. maax moom ñoo nekkandoo jaraaf. dafa am loo xamante ne bu dexee sa papa keneen. doo ko bëgg mukk waaye boo ko bëggul itam war nga àndaat sa ngor. d'accord mais jaraaf ci loolu euh, ñi ngi chuté ci li nga xamante ne euh, moo di euh, jafe-jafe yi am ci ci ci wàllub suuf si yi nga xamante ni président ñëwoon na ci mais laataa loolu ngi ñu tëj ci parti bi ñu taxaw ci Ousmane Sonko am na ñu ruuma daal jamono ji leen ni comme dafa am jafe-jafe ci wàllub yoon et que bokkam fu mu ne ni wóorutul parce que war nañu war a mën a am ab ab plan B. yow lu nu mel gis nga ni euh, lu wax am la wala bokk war nañu xool xam rek fan la yëfi di mujjee ak kii di seen seen seen candidat di Ousmane Sonko. ma ne réew mi dafa amagul amul xam nga man mii ñaata yoon laa def prison def naa quatre fois xam nga cinq fois prison xam nga loolu. lu la fa yóbbu woon. booba Samba Bakkili mooy maire wa xam ñuy laal suuf si may défendre pour que ñu bañ laal suuf si parce que si coutume booba man dama bokk si ñiy suuf si. ndax dégg nga wax mm. euh, euh, euh, ñoom ñu bëgg lii man ma bëgg leneen protéger suufu Wakaam mm. dégguloo may wax toujours ne waa Wakaam su fekkente ne dañ ma nar wax lu leen naqari lu ma naqari est-ce que waruñu seetaat seen bopp seen institut dafa am ay nit yoo xamante ni seen institution cathétique moo doxul oto yi daw yëpp am nañu am raxpante daw mm. moo dal ñooñu ma lay wax ne toujours ma ne wax Wakam dafa fees ak ay cadre en bois xamuñu dara c'est des cancres cancres yooyu <clears throat> gu ñu doon <clears throat> mooy indi may wax toujours pour que ñoom ñu mën a régler du ma ne nëbbatu ah mhm. léeg-léeg ma déggee cheikh nit sa armée la saaga ndeyam ba mu toll fële man naa naa booy bandi maa la gën a bandi foofu